mbëggeel ni mu neexee ku ko dundul du ko seede dafay féexal xol dalay wan yoon nga xam fi nga féete mbëggeel ni mu neexee ku ñu ngi nuyuwaat uh, ami internetu Dakar Buzz yëpp root nañuy suivre Dakar Buzz TV ci Instagram bi ak YouTube bi ak Facebook bi tey nag ki ma dalal kenn dootu ko présenté macha allah mu nekk xale boo xam ne si xale boo am talent nekk ci yoonam di dem di def mu maa ngi lay waaw maa ngi lay fay waa Sénégal di leen bëggee bu baax a baax di kontaan ci ñoom di nuyu képp kuy bëggee Dieyla. Mhm. waa Dieyla xale la boo xam ne dafay way mu juddu rek yàlla def muy way mu jagleel ko way mu doon loo xam ne lu bëgg la daal lu yàgg def depuis xale wam. Mhm. tey la 2014 2014 waaw. nga ne yaa dem naa ba demi final nag. waaw. Mhm. mais ci nekk. Mhm. après nga def sa première dafa nekk way boo xam ne daf ma neex vraiment léegi ma ne pourquoi pas duma ko cover. léegi après man ma ñëw def sama dammeel. Mhm. waaw def sama dammeel. mais ci label ci label bii nii da ñoom da nga ñëw rek ak ñoom damel euh, ak ñoom pour sa euh, si dama ak ñoom actuellement si label bi laa nekk. actuellement yaa ngi ci label bi waaw maa ngi si label bi waaw. ak si waaw dama signé ak ñoom. Mhm. léegi ñoom um, euh, gis nañ single si actuellement ñoo ngi studio ñoo ngi liggéey lu bari bari comme que ñoo ngi si vacances yi et xaar si yeneen yeneen façon daal. Mhm. mais gis nañ yi euh, nga xam te moom mooy damel def nga ko clip. waaw bi mu am tey jii tax na ñëpp naan Dieyla Dieyla grâce à damel lan la ñu a wax ci succès bi. vraiment damel daf ma doole. waaw daf ma ëpp doole si noonu laa mel sax lu may def dama ciy xaar mu réussir genre dama ci am confiance ne lii dina yegg fii mais dafa ëpp doole daal léegi damay romb sax sama tur sax mënatuñ ci jaar jaar fu ma romb dambel lañ may woowee vraiment mu doon loo xam ne lool laa ci doon séntu. Mhm. mais nan ngay booleeg musique bi ak étude bi nest ba léegi yaa ngi jàng. si ba maa ngi jàng quatrième laay def musique bi ak étude ñoo mën a ànd daal ndaxte boo bëggee yenn fee egg fenn si musique bi faaw nga jàng waaw. Issa ban classe ngay def. def. Mhm. Euh, mhm. ah, ñoom moom vraiment nekkoon nañ si petit gàlle ñu doon ay nit yu baax jàppale ñu def ci ñun éducation bu baax a baax waaw. waaw li ma dund ak ñoom moom lu nice la vraiment. non jéggante moom. Mhm. ku ci ko maa ngi ko doon woo ñu ngi doon déggante mais xam naa temps amul ak job bi nii fu mu yegg moo tax dégganteetuñu léegi. Ah, ah. si am na ñu mu si dégg nag vraiment am na ñoo xam ne maa ngi déggante ak ñoom ba tey comme ay ñoom ay Chocone ay ñoom Khady Louga genre yooyu noonu sama waa édition maa ngi leen di dégg. waaw gisee nga def euh, woo nañ ma félicité ma dañoo kontaan vraiment ndaxte dafa neexoon bañ nekkee si gàll bi di kaf di ree xam nga loo gis rek jàmm moo dàq lépp. dañ doon toog di kaf di reetaan moo tax boo seetloo sax suñu éliminé kenn buy dem dafay triste ñëppay jooy dafay metti moo tax ba mu woo nañ ma félicité ma vraiment ñoom tam ma leen nuyu ñu nekk ay nit yu baax yu ñàkk ki ñaan. Mhm. kon yaa maa ngi leen di dégg bu baax a baax. Mhm. ñoom ki nga xam moom mooy Ngoné Ndour famille mhm. dañuy jël xale yi di leen wayloo di leen di te ay doom tey nekkuñu fi ñu ngi jàngee fi nga xam te moom mooy extérieur macha allah ah. di am ay ay ay kii yu baax. Mhm. ay notes yu baax. est-ce que même pas nit ku nekk ak li nga bëgg def ñun musique la ñu bëgg moo tax euh, heure jàngu su jotee dañuy dem jàngi vacances yi comme ko defuñu dara. ñu ne pourquoi pas sagam yàlla am na lu mu def ci ñun ñu dem waaye ji seen Petit te balaa ngay dugg seen Petit Galle faaw nga am moyen bu baax waa mais am moyen bu baax dugg Petit Galle euh, comme ni nga ko waxee noonu. Mm-hmm. am na ci ñoo xamante ne si tey jii jaaroon nañ Petit Galle gisatuñ leen déggatuñ leen. Mm-hmm. macha allah yow la yàlla defee nga jaar Petit Galle tey nga def benn single boo xamante ne si ñëpp ñu ngi lay gisaat. Mm-hmm. Euh, di la dégg mais ñu bare dañ ni Petit Galle euh, comme ni ma la ko waxee léegi ñoom góone dañoo nekk ñoo xamante ne si tey gisoo seen benn doom wala gisoo seen benn mbokk. foofu laay insisté ci yow ba léegi. am na peut-être seen doom noonu ñoom ñu way daal. wala yàlla defu ko ci ñoom mais ñi nga xam ne bëgg nañu way te bëgg nañoo dem seen petit gàlle ñu ngi dund aar bi ñu ngi way daal. Mhm. léegi est-ce que ñoom contacté nañ la ñëw nekk ci ginnaaw ñi nga xam te si ñoom seen petit gàlle parce que ci mel ni ay sokone mhm. comme ni nga ko waxee ak ñoom mbëggeeg ñeneen ak ñeneen macha allah ñu nekk ci ginnaaw xale yi di leen di di leen di di leen awul daal bi nga fa jógee léegi contacté nañ la pour nga ñëw nekkaat ci petit gàlle non man de ba ma fa jógee ba léegi moom genre dama doon dégganteeg ñoom. mais après déggaatoo leen. non non après déggaatuma leen. contacté yoon pour nga ñëw non non comme ci yeneen xale yi fa def koy ay ay ay sa si xam naa non non. voilà ak yi am gis nañ ni ko ñi nga xam te ne nañ fa aussi. Mhm. Euh, euh, kii bu xasee ba ba Petit bu ubbee rek da ngay gis ñoom dañuy def benn single boo xam mhm. si macha allah xale yi fi jaaroon yëpp ju mel ni maam jaara ak ñeneen ak ñeneen bëggee bu Thiès ba yow nga jaar Petit Gallé depuis 2014 léegi bi ñoom woowuñu la loolu bëri naa ci ay moroom am na ñoo xam ne dem nañu ba final sax woowuñu leen man mi yem demi final tamit woowuñu ma waaw peut-être loolu ñoom seen choix la ñoom ñoo ko def. Mhm. kon daal ñoom ñooy ñu doxalee ko noonu waaw kay noonu la. noonu mhm. la mais léegi lan nga ah ñoom dam leen di jaajëfal rek di kontaan ci ñoom parce que tete nañu ci musique wan nañu lu bëree bëri bëri tey jii nii mën nañu wax ni fu ñu njëkkee xamee Dieyla mooy seen Petit Galle di leen remercier di kontaan ci ñoom bu baax daal. Eh, la naa maa waa Dieyla xale la boo xam ni dafa bëgg musique di way depuis ba nekkee xale ba tey yàlla def ko ci moom waaw man na géejawaay laa juddoo. c'est-à-dire waa géejawaay bii nag laa juddoo fi laa màggee. fi laa defee lépp vraiment ñoom tamit ñu nekk ay nit yu baax nit yu mu soutenir waa yàgg maa soutenir ci bépp côté. Mhm. amul amul amul amul benn label bu la bu la contacter pour ak yow à part ça loolu moom xaw ma parce que man géré wu ma loolu peut-être ñu woo sama ménagère yooyu noonu hmm, ndaxte man géré wu ma loolu. woo sa ñeneen label ñu sa manager. waaw waaw mais est ce que loolu sax dina a ah loolu ñoom la rek nañu nañu waxtaan rek ndaxte man géré wu ma xam nga aw ma lu may décider ndaxte ñi nekk sama ginnaaw ñooy décider lépp. Euh, Dieyla fii réew mi toll gis nañ fi euh, macha allah jamono yi passé rek ñu jàpp ay jigéen yoo xamante ne si ni ah. ay lesbiennes lañ. Mm-hmm. loo xamante ne si lu la ak ban yëg-yëg ci am. waaw loolu moom doonul lu rafet te yàlla dafa sàkk góor sàkk jigéen rafetul jigéen ak jigéen di nekk rafetul moom vraiment rafet wu ma ko. Mm-hmm. ah di leen wax ni que ñu génn ci loolu ñu nekk ut yoon bu baax loolu rek laa leen di wax. ñu génn ci ut la nga foog moo waral moo waral loolu boo xamante si wala réew mi réew mi réew yow lan nga gis yow. lan nga gis ah. loo xamante ne si mën na nekk peut-être seen choix la tamit mën na nekk daal lépp daal peut-être ñoom ñoo ko choisir nekk ko. mais du lu baax daal bu ma suñoon man ñu génn ci level boobu. ñu génn ci mhm. ak fi musique bi toll nii. waaw gis nañu promotion canapé yi nga xamante ne si moo ci am macha allah est-ce que doo toog ba si yàgg yow tant que xale nekk ci milieu bi ak yi ci nekk yëpp ak li xew ci milieu showbiz yëpp sa yaay jékki-jékki wala wala tiit yow de ah Dieyla li ma gis ci musique bi kat doy na waar. ñii dañ leen di chantage ñu ngi leen def naka su dul noonu ñenn ñi ñu ngi koy nangu ngir bëgg a wane li nga xam ne mooy talent bi nekk ci mhm. yow est-ce que Dieyla mos a dund non Dieyla ma mosul dund noonu yàlla def ne ma am sens boo xam ne ñu nekk sama ginnaaw ñu doon ay nit yu baax chaque jour dañ may conseil Dieyla defal lii del sol lii booy génn del sol lu correct parce que xamoo ko lay gis booy wax xamal li ngay wax bu la kenn yóbbu vraiment ndaxte xam nañ li metti na ñoom xam nañ li ci nekk moo tax chaque jour ñoo ngi may orienté ci yoon bu baax. ñoom daal euh, say parents waaw ñoom moom jàppale nañ ma ci bu baax a baax. mel la mhm. ci temps bu ndaw nii macha allah nga ci dundagum lan nga dundagum ak vraiment li mu ci moom lu neex la ndaxte li ma doon ñaan yàlla loolu laa am man yàggoon naa rêvé nekk laa boo xam ne damay génn ñëpp naan laa Dieyla laa te vraiment fu ma dox Dieyla sa son bi def maa neex tout le temps dama koy déglu genre mu doon daal loo xam ne loolu laa doon wër daal loolu laa doon ñaan yàlla yàlla defal ma ko. Mhm. non loolu moom gisaguma ko. mais Dieyla euh, da ko mën a tuddee xaw ma Dieyla da nga doon rawax rawax rek ak Dieyla bii nu mu demee nii. ay yow gën a xam xam nga ni dangay màgg di bëri kersa. Mm-hmm. waaw noonu la demee. mais damaa xam Dieyla bi xamul petit gàlle rek. waaw xanaa yor salañam ak ay ay ay de dañ may tegal vidéo yi du ma ko sax nangoo xool la sax yow ah, lépp mën ne daal xam naa tamit yàlla moo ko tuddoon rek mm-hmm. Mm-hmm. loolu waaw loolu rek la nag. soo amee conseil boo jox xale yi. jeunesse su waaw ñi nga xamante a def musique sa góor moo rek te moom metti na trop te nit ku nekk foo bëgg a sa fulla ak sa fayda ak sa jom ak sa moo la fa mën a yeggal ñu góorgóorlu bu baax a baax loolu rek laa leen di wax. loolu man moom musique yàlla moo ko def ci man. da nga da nga am maam buy way da si amoon naa sa sama papa da doon way mais moom dafa teel a bàyyi. sa hmm. mhm, mais dafa musique la doon def. waaw si musique la doon def. xam nga famille moom bu amee koy way faaw ki kenn xëcc si dara daal noonu la demee. Ah, kon da doon way. waaw si da doon way way bi nekk ci sa yëfu bopp. waaw nekk ci sama mm-hmm. mais comme ba léegi nii génn gu ma ci cadre xale yi ba léegi nii. waaw voilà léegi yow xale yi tey ñi nga xam dañoo bëgg musique. Mm-hmm. Mm-hmm. te bëgg a tëb tëb rek dugg ci musique loolu est-ce que tamit yomb parce que musique doon na loo xamante ni si il fallait nga nga jàng ko. voilà ñi nga xam te ne dañ cee nekk te jànguñu ko sax bi demee ba ci biir xam nañ ni que lii mënoo koo def te jàngoo ko léegi loolu du la indil benn problème tëb tëb rek def musique nii nii. te def ko benn benn euh, jaar foo xamante ni si jàngoo ko daal parce que bu ñu juumalee fee rek nga mës a jaar Petit Galle rek nga mës a jaar. Mm-hmm, rek wala nga def euh, formation boo xamante ni si ci wàllu musique la wala. non ko def. mosoo ko def non non. man moom musique moom yàlla moo ma boole ak moom dama judd rek mënu ma la wax sax exactement kañ laa commencé way bu ma xàmmee daal ba léegi man damay wayantu damay way rek ndax dama koo bëgg sama xol. mosoo jaar benn école formation boo xam jaaraguma fa bi toll nii. Mm-hmm. koy xalaat si maa ngi koy xalaat maa ngi ciy liggéey bu baax a baax. maa ngi ciy bàyyi xel bu baax. Mm-hmm. Mm-hmm. ku ñëw di la jàngal musique wala jàng musique. si dafa am ñu nekk sama ginnaaw naan ma defal lii waaw musique bi daal. dafa am lu mu laaj ci daal dafa laaj ci liggéey boo xam ne faaw nga concentré wu liggéey ci bu baax a baax te maa ngi koy def moment bi mhm. yaa si maa ngi ciy jàng bu baax. déglu mhm. bind yaa koy bind yaas moo ko bind. Ah, mhm. yaas sama ménager moo koy ah, bind. waaw. Hmm. tey moom ma bindal si loolu day am parfois nga xalaat loo xam ne damay ñëw wan ko ko lu ci baax mu jël ko mu téye ko lu ci bon mu ne ma defee nii ak nii. léeg-léeg nga ndaxte xalaatoon naa lii si loolu day am ndaxte xalaat du doy parfois nga for lenn ne lii ak lii laa for mu ne la defee nii ak nii du ci ñàkk. Mhm. mais bi single bi génneeg léegi ne waaw que dem jàpp jaar nga ci yenn euh, spectacle yi est que nit ñi tamit ñu ngi lay ñu ngi ñëwal fii wala jiw day tëgg fii moom si de rek ci mel ni Sidi Diop. Mhm. yenn artistes yi ndaw yi est que ñu lay contacter loolu moom géré wu ko man damay toog ñu ne ma am nga fii prestation ma dem def ko ñëwaat. Mhm. ah mais bi single léegi def nga fi ay ay ay kii. def naa fi ay prestation yu bari. Mm-hmm. Uh, prestation yooyu yow sa yëfu bopp la wala dafa am artiste dañ may invité wala ñeen contacter sama ménagère mu ne ma war ngaa joué ji fii expliqué ma ma dem joué ñëwaat. mais ci mm-hmm. yi kan moo la ci woowagul ci ci ci ci ah gisaguma leen de. gisaguma kenn woowagul ah. <laughs> leen de. Ah. mais yaa ngi yaa ngi xalaat ëllëg ñu xëy ñu la jëlaa kat ñëwal soxla nañ la ci suñu suñu spectacle waaw maa ngi koy xalaat bu baax kay. yaa ngi koy xalaat bu baax a mhm. ak vacances yi comme wax mhm. loolu tëj na saa yaa ngi wu ci musique mhm. programme yi day am ci li nga xamante ni si moom mooy plage yi et tout foofu tamit euh, kii woo ko fa. waa comme que ñoo ci vacances daal musique bi moment bi lu mu laaj dañ ko koy jox ndaxte moment liggéey bi. ñoo ngi ci ñoo ngi ci vacances yi bu école tijjee dañuy nekk si études yeeg yooyu noonu doo ci mën a nekk mais moment bi daal fu ñu am prestation dañuy dem du ñu war a liggéey studio dañ koy liggéey ndaxte ci lañ toll. mais wax nga ko nee nga single bi indi na buzz boo xamante ne si macha allah yow sa jëm bopp. waaw sa àttanoo ko. waaw voilà mais est ce que mën nañ laa xaar balaa vacances yi tëj nga defal xale yi nga xam te ne lay bëggee benn show. si nañ ma xaar dinaa leen defal lu dóob. ci vacances yi ci vacances yi incha allah. Hmm, loolu kañ lay doon. léegi rek lay doon incha allah du yàgg dara. du mhm. mais léegi fi musique bi toll macha allah ma waxaat la ko fi musique bi toll nii. Mhm. fan nga fan nga gis sa bopp fan nga gis sa bopp si musique bi gis ah, allah pour que yaa ngi sa bopp fu sore waaw man moom lu may def lu nekk dama ci ànd ngëm-ngëm dama naan fii kat bëgg naa faa yegg man noonu laa mel lu may def rek dama ciy ànd xam nga nit looy def boo ci ànd te ngëm-ngëm jarul nga koy def man moom noonu laa mel maa ngi séentu sama bopp fu sori te maa ngi ñaan yàlla yeggal ma foofu daal. Mhm. ci artistes yi macha allah gis nañu ñëpp nga def kii moom moo gën a tax tey ma gën a bëgg musique gën a fonk musique bu bëgg dem fu sori ci musique. waaw loolu loolu sama idol moom Kumba Gawlo la. kooku moom mu koy déglu di kontaan. Eh? billaay si weesa dama naa mën lay wayal. yow mi nii ci man ma fàtte nii li weesu woon ak li ma jëme lool li nga xam mi rasulullah macha allah mais comme wax nga ko nee nga Coumba Gawlo moom mooy sa idole est-ce que mas ngeen daje yéen ñaar wala mas na nga contacter wala lan nga yan kii nouvelle nga am ci moom. awma ci moom benn nouvelle man daal naa koy dégg di kontaan rek ndax dama ko bëgg su waay sax dama naan man lay wayal mais maa ngi rêvé incha allah ma gisante ak moom. ah loolu day am da nga koy wax direct ci Dakar Buzz xam nga koy wax da ah, nga a xam fu ngeen mën a mën a mën si gëm naa ne loolu dina am. Mhm. mais da nga koy wax grâce à Dakar Buzz dina si jot ñëpp a koy seetaan macha ah xanaa du sa idole. sama idole la mais yow laa bëgg yaay sama idole bëgg naa nga recevoir ba ñu moom am. dama wax carrément ñi nit ñi bu ko ni ko ah man kat yaay sama idole bëgg naa nga wax ci man voilà wala nga recevoir ma affaire yooyu noonu. man daal Coumba Gawlo mooy sama idole te rêvé naa gisante ak moom. Ah, yow daal loolu bëgg naa ak moom gisante ak moom daal. bëgg Euh, ak ci réew mi toll comme niñ koy waxee. Dieyla <laughs> am na copain. non non amul copain rek Dieyla xale la. yow bàyyi wax xale <laughs> amul copain bàyyi li ngay wax. Dieyla yii bàyyi ma door wala sa essence fi toog tax nga bëgg a nekk. non même pas li am rek laa wax. moo. yéen su ma leen nëbbee mais yéen su ma leen nëbbee mënu maa nëbb ki ci kaw. Ah, borom mbaam mi mënu ma kaa nëbb waaw mi ngi noonu. non non non non li am rek laa la wax. aw ma copain li am rek laa la wax. aw ma copain. Eh. ak nii nii macha allah. Ah, mais nu ñuy def mais tamit da ngaa xew de yaa ngi def buzz yoon la daal ñu mel ni mais aw ma copain ndax eh. tollaguma ci. tollaguma ci non non 17 ans. 17 mi nga naan loolu ñoom la waaw loolu ñoom la ñooy toj réew mi mais man moom place xale bi ma nekk ba tey maa ngi fi. waaw. Mhm. Euh, famille ah. ii ñoom dañ dañ ma yàgg bëgg moom ma def musique parfois dañ ma daan invité ay prestation ma ne du ma dem dañ may forcer sax pour ma dem. Mm-hmm. ñoom dañoo nekk ay nit yoo xam ne ñun ñu ma jàppale comprendre ma si côté bépp su may dem ñu bàyyi seen yitte seen soxla yëpp solal lii defal ma lii defal ma ba mu baax pour bu may génne daal ku ma gis daal nawloo ma soo demee posé nga way vraiment ñu nekk ay nit yu baax ñoom moom mënuma leen fay. Mm-hmm. mais dañuy gis comme musique bi macha allah. Mm-hmm. mais xale yi dañu jël seen bopp teg ko foo xamante ne si fa nga baal ma ma ko sañ a gaa li ñuy def ci seen kanam. Mhm. wala peut-être ni ñuy comporté woo bokkut ak seen seen seen seen comment dire lu ma ko mën a wax seen wul ak li nga xamante ne si moom mooy seen age en fait. Mhm. voilà parce que léegi da ngay gis euh, musique bi macha amul mag amul ndaw xale yi léegi bari nañ ci macha allah. da ngay gis ñuy def ay ay yu bari ay mhm. greffage yu bari. ay métiers ñoom ah, loolu ñoom moom seen choix la man moom nekk naa nit koo xam ne damaa yàgg simple. damaa bëgg lu simple te dama naan tout le temps xale laa naa def yëfu xale te xale moom boo nekkee xale yëfu xale daal nga war a def nga bàyyi toll ci def ko loo toll daal defal ba mu saf li mais su passé passé na man noonu laay dundee. Hmm. naa yow noonu wax sa mbokk euh, mbokk artistes yi rawatina yi nga xamante ci yoon macha di ah di leen wax ñu jàpp te bàyyi rek lin moom loo jàpp yàlla jàppale la ci yoon bi moom metti na rek mais nañ jàpp rek. Mhm. kon ni ko waxee yaa ngi vacances. waaw maa ngi ci vacances man. ay 9 laa yeewu. ay def. li ma war a def kër ga liggéeyu kër ga. waa damay liggéey du ma pose damay bale lépp laay def mais jigéen laa. di lépp laay def. waaw ci la bokk tamit mënoo ne way kase way kase man jigéen laa. waaw faaw ma bale defar li may def sangu ba set solo xëy ñu neex ñëw prise di ma war a def suma pare demaat loolu rek la. macha allah léegi boo nekkee studio 9h yeewu def sama liggéey kër ba pare su ma añee ba pare ñëw studio teel ñëw su ma defee ay 17 heures yooyu damay dellu. Mhm. projet album la. waaw album bi toll. ci ñoo liggéey bu baax xam nga album moom dañoo bëgg mu nice te boo koy def du dafay laaj liggéey boo xam ne faaw mu xaw nañ ñu xaar daal ñoo ngi ci ñoo ngi liggéey bu baax a baax. waaw. album bi daal bépp xeetu musique boo boo gis rek nañ ko ci xaar. xeetu musique waaw dina am ay surprise daal mhm, nañ ko ci xaar. Mhm. Mhm. Euh, si mën nañoo xaar yeneen vidéo comme que ñoo ngi ci vacances yi nañu xaar bu baax a baax. xaar yeneen waaw. waaw dama leen di di kontaan ci yéen di kontaan ci képp koo xam ne yaa ngi may bëgge di remercier waa Rock Team Music ñi nga xam ne lépp ñoom la. Ziz Aar mi nga xam ne mooy de vidéo yu nice yooyu toute l'équipe daal vraiment jàppale nañ ma ba mu baax di remercier sama yaay sama papa lépp ñoom la voilà. waaw maa ngi leen remercier bu baax a baax. Mhm. ma am lu ma fàtte euh, euh, mën mhm. daal damaa waaru ci réew mi. man góor jigéen laa xamul lan moo ci neex mais peut daal loolu ñun ñoo koy dund mais man daal bu doon sama sago ñu def li li lislaam santaane loolu daal. kon daal yow su ma su ma la déggee daal. doon mhm. góor jigéen bi neexu la en tant parce que yàlla santaanewul loolu góor jigéen bañ na ko ba yàlla da koo sib dafa dafa sàkk góor sàkk jigéen mais lan la ñuy doyee nekk góor jigéen. Mhm. kontaanu ma ci daal. Mhm. merci. ñu koy man xam naa ku jël lay dee parti laay na la xam naa saa jur baadu la dama leen way dama leen dama leen bëgg Dakar Buzz yéen a ay bu laay mun kumpan xam nga internetu Dakar ba gis ngeen li nga xamante ne si moom lañ leen indiloon tey macha allah muy Dieyla nekk xale boo xamante ne si nii mu ngi ci yoon. Mm-hmm. macha allah nee naa la musique sénégalaise bi yëpp nañ ko bàyyi xel xale la bëgg na li muy def te gëm na li muy def en tout cas ñun Dakar ba ñu ngi lay jaajëfal bu baax. maa ngi kontaan ci yéen bu baax bu gudd bu bu bu yaatu. amiin amiin amiin di nuyuwaat mbokk internet yi si Dakar Buzz yëpp ci Dakar Buzz TV ci YouTube bi ak Instagram bi ak Facebook bi mm-hmm. merci beaucoup.